yàlla bu baax di julli si yenente bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu presse bi yëpp di nuyu persi di ak tribo di nuyu staff bi fi daje yëpp dëgg yàlla di nuyu sama manager Pa Amen Ndiaye ak 10 000 di nuyu waa Ersan yëpp di leen wax am naa combat ma tribo xam nga le drapeau le 19 incha allahu rabi di si waa di si woo kees waa yëpp di si woo waa Gambie di si woo waa Mbour di si woo sunu sunu waa dëkk waa Casamance xam nga di si woo ñëpp di ñaan suñu borom may ñu ndam incha allahu rabi di si woo nag képp kuy bëgg Pambay waaw di si woo kees waa gépp rawatina arsan gu ma dëkk ok. xam Tribo waaw xam naa ko bu baax. Hmm. waaw ci noo ko làmb rek. làmb rek si làmb laa xamee champion la hmm? non man dëkkuma kenn mosuma dëkk ay mbër yi lu ma koy dëkkee <laughs> non dala raw ba tax waroo koo dëkk. non non rawuma si làmb moom ma koy dëkk. Hmm. Hmm. man maa ngi si onze combat. benn defet la daal. Gaynde. moo ma def mbër. <laughs> moo ma def mbër. mais boobu bëri naa fi waat ay combat yu bari. soo xoolee sama diggante booy jaxaw sama diggante ak ñeneen ak ñeneen bëri naa fi ay combat yu bari moom mii ah l'essentiel daal ñun heure bu ñëwee làmb ndam la indi te dañuy ñaan suñu borom may ndam duñ ko dépassé benn côté suñu grand la dañuy ñaan yàlla may ko wér may ñu wér. Tribo xam na xam na lool loolu duñ si sori parce que dañoo dugg si cadre sport dañoo ñëw pour présenter làmb yi incha allah dina gën a neex dina gën a yëngu. waa <laughs> ah, d'accord baax na <laughs> waaw mais waa baax na mais moo yu mag kay ku ñu mag kay loolu wax du du question sax ñuy wax loolu mais danoo mag dañ koy jox cër yàgg nañoo bëree ku ñu mag làmb ji bëree guñ foo xam ni tey ñoo tolloo âge booy bu ndaw laa su may génn àdduna kees gépp may topp à part ça di si nuyu Ablaye Dieye xam nga di si nuyu sunu grand Ousmane Diagne xam na di si nuyu borom drapeau bi yaa ngi ko ba jatara di ko wax ñooñu si a am na si ñëpp jàpp parce que bu buñ jógee kees waa yëpp ay jóg kon làmb ji di dakaar kon wax bëgg na ñëpp jàpp si bu baax a baax a baax a baax si wàllum béy yi. Mhm. di si woo tamit sama staff bépp sama staff bépp surtout maag grande hersan yi grande kees yoo xam ni tey ñoom ñëpp ñoo ngi siy jàpp te dañoo bëgg làmb ji comme te dakaar la te suñu première sortie la promoteur yu bari bëggoon ko sunu borom dool ko si Sidi. kon ñooy wax gars yi jàpp si bu baax a baax baax di xam ne làmb jóge kees di ñëw dakaar mett na si mobilisation ñu jàppale ma jàppale Tribo. Mhm. borom Tiwaawan wala tir boobu Tiwaawan bokk. waaw bi ñu sant yàlla julli ci bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant ñi fi teew yëpp. parce que ku ci ne ku ci ne am nga am nga loo waroon def. di gërëm Père di nuyu ménageur Pambay di nuyu sama adversaire Pambay di nuyu sama sama ménageur ba di nuyu ñi ma àndal ku ci mel ni Aada Babacar Mbisaan John bu Tiwaan di nuyu sëñ Mbay bon Pambay li mu wax awma lu ma ciy teg parce que magam laa ci làmb mais du ma magam ci âge. ci làmb ko ci làmb laa ko mag expérience bi moo tax. di ko wax ni nag am na combat moo ko yàgg di bëgg tey la suñ borom dogal di wax ni nag am na bis am na bis bu mat bis nag. di wax waa Thiès yëpp ñu jàppale ko ci côté yëpp nag parce que li ñuy wax rek lu yëngu lu ne la ko yëngal ak ëpp doole te tiir boobu bu jugee li muy jugaale Pambay attanu ko di wax ni waa Thiès nañ ko jàppale bu baax di woo waa Tivaouane yëpp nag awma xaaj xaaja aw seen xale yi mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi maa ngi woo ñëpp di woo ku ci mel ne Ablaye Ndiaye ngalgu combat bi combat am la ku ci mel ne Abdou Aziz Alé Ndiaye combat bi kombaam am la ñoom ñoo ma jëlloo combat bi parce que bi yàgg nañ koy di ko dox mais sottiwul ren la ko yàlla dogal combat bi su ma juumul quatre ans ko bëgg quatre ans stade Maniang la woon ba léegi kon combat bi combat bu ma ñor la waaw di wax ni ne. mais xam naa ko xam naa ko bu baax a baax seetaan naa ay làmbam yëpp su ma làmb yi mu bëri yëpp seetaan naa ko xam naa ko bu baax a baax. waaw mbër la parce que mbër moom soo bëggee nekk champion su ma nee du mbër kon man du ma mbër ndax mbër laa jël su ma ko bëggee suuxlu sama bopp laa suuxlu kon bu ma ko daanee ndax sama sama sama tur gën a yokk faaw ma nangul ko champion champion la moo tax ma jël avance am waaw tëddul nag di nelaw parce que yaa fuusul Thiès bëri nay mbër mais moom laa fi cité pour bëreeg moom am na ñu ma cité woon mais comme boo toogee di xaar làmb amul amul xaar waaw fee daaw laa mujjee bëre combat cité maa bëri woon bi muy yàqu. maa rawaan. ma maa ko daan non rawaan bu bu bu bu ginnaaw raay depuis boobu maa ngi toog di entraîner ne ak sumay staff. waaw fii min naa ko bi mooy sama quatrième combat Dakar bi mooy sama quatrième combat Dakar ah. waaw moo tax min naa Dakar waaw. léegi bi moom du weesu neex parce que Turbo moom ku xam jógam moom xam ni moom du bëree combat bu yomb. waaw du bëre combat bi te pambay mi tamit instant gépp dañ ko yónni yàkkamti ko kon taxawaalu waru ko su demee na yokk entraînement am. mu yokk waaw. yaramam yi dawul sama yaram lii dawul sama yaram. te dama bëgg su may bëre bëreeg mbër bu wow koŋŋ bu fees dell mais lii dawul sama yaram. <laughs> na liggéey bu baax a baax. waaw non di dëgër ko gën na liggéey xam naa li ma ko wax. Hmm. waaw. loolu yomb na kat. ah li ah di dëgër ko gën de. et puis Pape waaw. gi nii combat bii ñu koy wër. waaw ah ci kan la doon yàqoo. non sama avance sax xaw na fee fanaan ci kër ñu xëy yónnee waat ma ko ñu ma wax ak man sax orange man xaw ma lan la ñu ko yónnee. est-ce que wéyuñu la ko. ba léegi. combat bii ngeen di ñuy ngeen di wër-wërloo cees gépp taxaw di ko wër. kon nag yéen ñaar xam ngeen ci kan la yàqoo. am na ku ma fekk daal ci loge officielle ba ma toog ma ñaa sumaare ab mu ñëw wax ak man ba combat ba yàqu ngeen bëgg faa toj làmb loolu ngeen doon def Cees nag te faat leen ko fii ba mu saf saf parce que yéen Pape li la kii wax nii non Pape bu tëddee mais noonu ñu ma la xamee loolu mooy lan. kii nii quoi non non yéen dama nagal nagal nagal ma puus seen diggante ñoom ñaar ñi léeg-léeg sax. Père Sidi Père Sidi. lu nga wax dëgg la. lu nga wax. xoolal lu nga wax dëgg la. jàmbaar ji yàgg naa daw sama avance moom yàgg naa daw sama avance l'essentiel daal sunu borom tey la ko dogal mu taxaw dañuy ñaan sunu borom yàlla may ñu ndam waaye waaye ku xam ku xam ku xam làmb xam ni Pambay da kaa am ba mu sëkk. di si woon nag bépp mbër bu dëgg kees di ko wax làmb ji seen làmb la maa ngi si woo ñëpp waaw mais chaque chose à son temps lu ci ne heure la Pambay bi ma koy musuma ko daw dama ko doon bàyyi mu bëree ak ñi mu war a bëreel peut-être bëri na ak ñi mu war a bëreel tey la yàlla dogal combat bi taxaw. Turbo mosoo maa raw si làmb yaa ma njëkk si làmb mais mosoo maa raw si làmb. Pambay onze combat nga am. dama ne la dama ne la am combat yu bari taxul nga def flèche si làmb. ñun dañoo ñëw indaale ak sens leer bu bari si làmb ndax fu ñu dëkk ak suñu qualité kon bu ñuy wax nan wax rek affaire yaa ngi si kanam day neex de nan présenté làmb ji rek. wax na ko ci wax na ko ci wax na ko ci biir wax bi mooy premier combat dakaaram kon maa ko raw ci làmb. man la neex moo tax ñëwuma dakaar parce que du ñëw du nekkul nekkul làmb da ngay ñëw rek dugg dakaar da nga am looy def sa dëkk ba sa waa dëkk ñëpp gëm la topp la. comme nu ma toppee ma soog a ñëw Dakar mais am pa gars yi promoteur lu ma doon proposé Dakar fii parce que dama xam ni bëre woon ak moom ci jamono boobu du woon yoon samay saaf bàyyiwuñu ci woon yóbbuwuma fenn non du question bu waaj di am moom moo waaj <laughs> parce que avance bi yàgg na ko di di di di bëgg mais lu mu yaakaar ba jël ci combat bi lu ko gën a wow mu ngi fi lu mu yaakaar moom ba jël combat bi lu ko gën a wow mu ngi fi di woo sumay mbokk nag waaw xam nga làmb am na fu muy toll il fallait nga defar recul pour xam fi ngay jaar kii dafa bokk ci sama yoon maam doo daan la rek faaw ma jéggi ralenti jéggi soo a mën a takkaat jóg. <laughs> déggoo ma de. kii doo daan la ci yoon bi faaw ma ralenti pour takkaat. mën a mën a bëri xaaxaam mën a takkaat jóg. amul différence parce que kii mënul daw sama yaram ku bëreeg Ndiaye Tine bëreeg Nokia bu Bada Joon ah bëreeg mbay du la du doo dawul sama yaram man ñi ma non yéen yéen a koy wax du man xoolal rek dugal ci média wala nga def njaaytin ak kii ku gën a ës Nokia ak kii ku gën a ës mooy gën a ës kon combat bi laay gën a teg sama bakkan combat bi ci laay gën a teg sama bakkan parce que dafa war a am lu ma prouver combat bi awma ku ma koy may ci àdduna sama yaay laa koy may kon combat bi dafa ma jaral non kii markam bi dawul sama yaram kii bëri non dama ne kii ñi ko gën a diis laa bëreel Sidi Diakhaté du ma bàyyi fen bi may tëggal maag Eumeu bu Kébémer néeg saalam laa jëlee avance bi Eumeu Sène moo gën a diis kii bon du ma ko du ma ko minimiser parce que mbër la mbër kaamil la nag mbër bu ma naw la moo ko ménager am kii musul bëgg ñu bëri yàlla xam na ko fekk naa ko saal di mu ne su ma seen doo bëre ak Pambay mais làmb dafa am fu mu toll faaw ñu ñu ñu yee ñiy nelaw làmb Thiès dafa am fu mu toll faaw ñu yee ñuy nelaw loolu kese Tribot laa la Tribot mii toog mii ah? xam na lépp làmb maa ko daaw dama ne lépp làmb bu ñu si demee maa ko xam nga xam nga xam nga pël xam nga pël ñëw naa man ak sama diggante booy jawaas ma ñëw am lu mu ko wax dañuy doog a dugg Dakar ñu wax yu bari parce que kees daa am fu ñu teg. no bu du ma xam nga sit internet yaa ngi fi. da leen di dugg ngeen xool combat tribo xool combat Pambay ku ëpp ku si ëpp ay capacité. bu ngeen. l'essentiel lu ma koy wax mooy dama koy ñaanal jàmm sama grand la duma ko dépassé si benn côté parce que jox naa ko respect. li may wax tamit mbër xaaral rek ma ñëw. non li may wax ci làmb. mbër li may wax ci làmb. làmb bu ñu ci doon joxe diplôme ci ñiy raw laay bokk bu doon day am d'office laay génn boo tapé woon YouTube. Turbo day mbappat moom mbapatul kii mbapatul kii bu dul làmb du bëre bu dul combat nommé du bëre bu la waajalul du bëre man damay bëre samedi bëre dimanche bëre lundi damay dugg ci àll bi dama bëre ba wow. non bi may bëre ak Reug Reug Thiès moom ci ñi doon yuuxu supporter la doon bi may bëree ak Reug Reug combat si jaxle moo ko tegoon mbappa 2 millions maam Reug Reug demi-finale. non moom a daan mais ba ci ñi supporté moom ci la bokk parce que la moo fa def bariwul mbëri ko fa def kon cadre turbo moo la dàq bëri du débat déggoo man machine laa non ci bëri man maa koy diriger maanaam ko fii ngay yem lii laa lay def lii laa lay daanee turbo nag turbo nag defe naa dama bëgg a ko waa te bëggoon naa def tekk waaw ah, amee yow nga jël avance jaamul bëgg a ñëw doo yëngal. non non man bu ma yëngal boo ñëwee fii nii di wax ay capacité bëre capacité xeex capacité mën làmb te nga daw sama avance 4 ans loolu xam ma ni man loolu lan ngay demee non si moom xam na ko ñaar man lu ma jël si àll bi doo ko jël si àll bi wóor na Seydina Mohamed jour bu ngay wax loolu noonu damaa pare dem bëre ji nag laa jël jaxaw siin ñibbi si. kon capacité de làmb ay du la si wax parce que munoo daw sama avance 4 ans bëgg a neexal bis bi talaxu di wax rek. bu dee cadre nag sama yaay dama ne la dama ne la. Turbo suñ duggoon arène nationale gii. dama ne la ma daan la 5 jël ñu doog a ñibbi sans dara. xoola wóor na Seydina sama ne ma gétt gi nag xajatu fi ay nag bu ma ko jaay sa waay. Pambay mi daa baax di bëri wax rek. déggoo ma de kii daa baax di bëri wax déggoo man <laughs> la. li mu moom li mu yaakaar li mu yaakaar ba jël sama avance. lu ko gën a woo laa fi toog bi mu feebaree ki ko faj maa ko booleeg moom lu lu lu daw yaram laa lay wax moom bi mu feebaree bi mu feebaree moom ki ko faj maa ko booleeg rakam Lamine Diédhiou maa ngi koy nuyu au passage gis nga làmb dafa am lu mu baaxoo. baay kii nii wuy ma. lu mu yaakaar ba jël combat bi lu ko gën a wow mu ngi ma Pambay dama ne dama nekk si média. kitaabu naa ko ci njool màkka laa la bu buñ jëloon oto jëm Tiwaan arrêt buñ wàcc ma daal ko mu yéegaat. wuy ma da ngaa nekk si média booy wax xamal lu ngay wax. lamb lañ séq da nga ne waa déglu déggoo ma laa buñ jëloo oto jëm Tiwaawan arrêt bu ñu wàcc ma daal ngay dégloonte yow dawal sax sama ni da ngay dégloonte ñu wax cadre lamb ñëwal dama ni dangay ngay dégloonte ñu wax cadre am n'est-ce pas yaa ma jiitu si lamb war nga see mën a am expérience même ku ma fajak ki expérience bi ma am dama ni moo tax may bëri waaw da may déglu bu baax bàyyi ñun lii du suñu première lamb waa yaa may dégg buñ média yi ñëw fii nii wax loola ngay. tànn li mooy sama première làmb ak yow. non non dama ni. Pambay dama ni nan def ndànk rek affaire yi signature yeeg yooyu noonu bari na. sa doo Iran Ndaw doo doo Oustaz Taïb Socé yow làmb moo ñu fi andi nañ wax li ñuy wax takk jóg dem ñibbi. man sama vie privée bu si dugg yow da ngay feebar man damay feebar. sa làmb sama avance laa jëm waxuma sa vie privée de. sa yaram yi sax dama ciy dugg. dama ni pour l'instant nii ba làmb ji jeex. waaw d'accord d'accord dama ni bu si dugg yow da ngay feebar sax bu ci mënee yow da ngay feebar man damay feebar kenn damay feebar waaw non maam dama lay jox exemple mais sooy wax da wax dëgg. non yow lu nga wax du dëgg. waaw merci. Ah, sooy wax da ngay wax ni sooy wax da ngay wax dëgg. jërëjëf papa. booy wax da ngay wax dëgg. stade bi stade bi booy ñëw caméra yi tiim fii ngay taxaw di. maam moom buy mobiliser pour ñëw. na sóoraale lu bari. buy mobiliser di ñëw na sóoraale lu bari. wóor na Seydina Mouhamed tribo mënumaa yëngal fenn noo dama ni mënumaa yëngal su neexee nag na taxaw wax lu ko doyal mais mënu maa ah, yëngal tiir boobu Pambay. wala bu ñu jëndoon paquet de mande ku daan ma ci benn du xeex moom. tiir boobu tiir boobu yaa ngi léegi defe naa li ngeen waxante moom mënatu ngeen koo dépassé te heure bi mu ngi dem yaa ngi dégg actuellement mu combat bi kii na maanaam jaay na. Babacar waaw Babacar waaw. lu ma lay dolli rek wax naa la ko. waaw nee naa la kii 4 ans moo ngi daw moo ngi daw sama avance. 4 ans léegi le 19 mars di ngeen bëri bu xaar ma xaar ma wax la dama ne la na loo xam ne tey moom waruñu ko woon sax polémique même combat bi taxaw na mais danoo ñëw pour xam ni combat bi taxaw na rek am na yoo xam ne jërul dugg si Turbo wóor na Serigne sa bëgguma di waat si ko quoi Pambay mais dama ne Pambay grand nga amal yar dama ni la man du ma la dépassé man mi di xale te yow xam nga ni maa la gën a yàqu fopp faal faal non dama lay wax rek pour nga xam bu xam na ko faal man boo boo yàqoonteeg boo yàqoonteeg man su ma ñëwee làmb dama ni la su ma ñëwee làmb yow soo ñëwee làmb bokkuñu. yow même su ma bëree si wul sax bokkuñu. déggoo ma de yow boo yàqal soo amee coow kees man maa la ko may. boo yàq bëri waat yi wax. di nuyu aussi vraiment le promoteur la capitale du rail muy monsieur Sidi Diakhaté d' abord dañu koy nuyu danu koy gërëm aussi dañu koy sant bi mu ñëwee fii dakaar ma bëgg leen xamal ni ah, promoteur yi gan ñëw na biir Dakar. dana fi indi ay combat yu neex dana fi gën ay combat yu mag a mag a mag a mag ñu ngi ñaan na ñëpp dalal ko ndax comme dugg na dañu dañu bëgg yàgg fii ndax en dehors ménager Pambay damay président structure Sidi Diakhaté production lii nag yàgg nañ ko bëgg peut ren la ko yàlla dogal ñuy demande na ñëpp ñu ñaanal Sidi yàlla dalal ko jàmm biir Dakar lenn nag am na ci suñu rentrée dakaar mooy ñaari mbër yi tir boobu wax na wax bu am solo léegi bëgguma woon ñoom ñaar yu bëre yàlla xam ne bëgguma ñu bëre ndax ñoom ñaar ñëpp samay doom lañu combat bu rëy la nag ndax is ça fait quatre ans effectivement li ñu wax dëgg la waa Thiès ñoo soxla woon komba bi may ñëw dane pourquoi si sax di indi làmb ji Dakar ndax bii combat waa Thiès ñoo ko soxla woon et que nit yi Dakar yi suñu yéexee amateurs yi waa Thiès dana feesal làmb ji wallaay lu leer laa leen wax ndax Pambay ku ne xam na ni ku gëm ku ku ko xamul dégg nga ko à ku fay champion daan na la def na lu rëy rëy rëy Dakar bëggoon na ñëw dakaar bu yàgg mais il fallait ñu xaar Sidi ba mu ñëw accompagner ko bii Dakar ndax Sidi moo génne Pambay promoteur yi bari ñëw nañ ci man di ma demandé Pape ma leen non non nan xaar rek dañuy xaar peut-être nag léegi la ko yàlla dogal dogal ko nag ci champion kii muy bëreel champion la. champion bu mag a mag li mu wax dëgg la mbër yu bëree bëri bëri xam nañ kan mooy Turbo Turbo Thiès loo tax ma ni lii yéen su ngeen yéexee waa Thiès ñoo koy fees ndax ça fait quatre ans bëggoon bii combat on se demande pourquoi si di ko indi fii sax dakaar Dakar ne na ko bàyyi Thiès ndax peut-être avantage mooy structure kii bi moo gën a moo gën a mag moo gën a yaatu te publique bi fii rek la xaj xajul Thiès. donc ñuy vraiment di remercier encore Sidi bu baax a baax ci lii mu indi làmb ji fi jees di indi aussi Sidi xam ne ñoo taxaw fii vraiment ñoo ngi leen di sant bu baax di leen di leen di leen vraiment di leen encouragé di demande aussi ngeen jaay gën a jàllale combat bi pour waa Dakar mën a ñëw gaaw a ñëw sinon waa Thiès ñoo leen fii ñoo leen fii ñoo leen fii jiitu je crois que ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yal na yàlla yóbbu ci làmb ci jàmm ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin ndax ñoo ñu ay doomi Cees lañu jërë ngeen jëf merci waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Cees mbokki Ndakaaru gi nga xam ne ci la ñu ñëw tey ñoo ngi nuyu suñu président Bira Sène mais balaa ñuy sori rek damay nuyu sama kilifa gi nga xam ne moom laa àndal muy Sidi Jaxate muy sama mag di sama xarit di sama kilifa wóolu lépp lu muy def teg ko ci sama loxo ma ñëw fii nga xamante ni mooy dakaar tey àndandoo fi ak moom di waajal bis bu mag muy le 19 mars. ku ne xam na ni Sidi fu ko nit gis gis ma ci wetam loolu moo tax tey ñu ñëw ci signature contrat bi nga xamante ni moo ñu fi indi mu dox ci diggante Pape mbay ak Turbo Plein yàlla dogal Pa Ahmed Ndiaye di sunu kilifa di sunu mag. ci instructure bi nga xamante ni moom la si di jaxate production yor mu yor ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye bu R100 di ko it ma yor ki nga xamante ni mooy turbo plein ñu dénk ma ko ma di ko ménager ñu ñëw nag di wax ci cadre bis bi nga xamante ni moom la si di jaxate war doxal fii ci Dakar gis ngeen li nga xamante ni moom la waajaloon tey mais gis ngeen li nga xamante ni moo ci am defe naa ne combat bii kese ku ñëwoon présenté ko fii ci arène nationale rek doy na mais ci xëru Sidi ak yéeneem dafay xool lépp loo nga xamante ne rek lu waa Sénégal bëgg la mu ne dina ci taxaw pour def ko tey na combat bi daanaka suñuy wax ñun du ci bari ndax bu ci sii di waxee Pape Mbaye wax ci boo wax sama papa Amet Ndiaye wax ci rek daanaka ñun duñ ci mën a wax lu bari mais liñ leen di xamal daal ci gàttal mooy ñoom seen bopp li ñu wax li Pape Amet wax mën naa ne parce que combat la boo xamante ni ñetti at ñeenti at waxuma la taxawal gi rek mais Thiès gi ñu koy jëlee di fii ñoo ko gën a soxla Ndakaaru gi ñu koy indi mais dañ koy indi pour wane ni am na ay champion yoo xamante ni si da leen a produire ci ab def ci ñoom lam ca war a wax def ba mbëri yi egg ci dimension boo nga xamante nit ñi xamuñu leen kon dina jaadu buy ñëw Dakar su leen mënta indi ñoom ñoom dongit di ñëw ci ab dëkk boo xam ne fekk na fa ay nit bu fa taxawalee combat ba pare mu jëlaat combat bu mel ni booba taftal ko ci wetam loolu mooy sababu si di jaxate jël combat bu mel ni indi ko mais Thiès gën a jógee ñoo ni ko gën soxla di sant képp koo nga xamante ni ku déplacé wu la ñëw ci bis bi ngir taaral si bis bi muy bi ak koo xamante ne manager nga wala mu nekk ab promoteur képp koo xamante ne ñëw nga fi rek ñoo ngi jël suñu kàddu leen sant leen gërëm ci tudd si di jaxati production wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kon ñaari mbir jóg leen ngeen